CV Mohamed Lamine Foster ak CV euh, Moussé Diagne euh, ñu tàmbale ak euh, celui de Mohamed Lamine Foster mhm. qui a eu de 2012 à 2013 sa licence en ingénierie juridique banque assurance à l'université Dakar Bourguiba compétences droit et technique bancaire droit et technique d'assurance droit du crédit pour ses compétences personnelles management des projets, management des opérations. Euh, donc pour le contacter, Mohamed Lamine Foster sera par mail à euh, lamine.foster.hotmail.fr. Mm -hmm. Nous avons également le CV de Moussé euh, qui a eu de à euh, une licence professionnelle, donc euh, je ne sais pas, Dakar CFPS pour ses dernières expériences professionnelles décembre à août 2015. Il a travaillé au niveau de MTOA, secteur logistique maintenance. Pour le poste occupé, il était magasinier. Donc pour les missions ou tâches réalisées, réception des pièces de rechange, la gestion d'une base de données MP2, un catalogue des articles accessibles par l'ensemble des secteurs, gestion multi-référence, gestion des pièces, marché, marché à bon de commande, suivi de commande, alerte seuil critique. cycle de gestion des achats et commandes, traitement des devis et factures, proforma et bordereau de livraison, traitement de service, euh, du service fait, validation facture, catalogue fournisseur, intégration des bordereaux de prix, réapprovisionnement pour les articles stockés, traitement des prêts matériels, gestion des inventaires. Pour contacter Moussé Diagne sera par mail à was.touda2@gmail.com. voilà voilà Pape Cheikh ñaari CV yi lañ tànnoon. jàllale ko di ñaan recruteur yi seetaan wala ñi nga xam ne bëggaat nañ ko gis euh, sur la page YouTube de de la TFM. parce qu'il faut le rappeler que temps bi moo ñu dul permettre ñu leen di liiral CV yëpp mais euh, voilà dañuy jël maximum bi ñaar euh, jàllale ko ça permettra peut-être que ñuy joxe liggéey mën a contacter bu dee profilu ñuy joxe ñu koy yónnee. am nañ ko ñoom bëri na ci ñi nga xamante ne dañ may woo derrière également pour avoir certains adresse mail reste inchangée yeewu leen tfm tukulëër arobase gmail point com. parce que soxla bu teew ay nelaw faju ko xam naa ne waa